ñoo yëglu Frapp France Dégage ci seen janook euh, taskatu xibaar yi la ñu xamle moon ne daal du ñu seetaan benn yoon ñuy gàkkal wala boog euh, di sërëxal Ousmane Sonko ci géew euh, politique bi sàkku nañ ci kilifa diine ñu àddu ci doxalinu njiit réew Macky Sall lu ko mooy réew mi mun na tàbbi ci fitna demb lañ ko xamle yemook nag Ousmane Sonko assemblée nationale di soobu ci mbiram ci muri mbalaanu kiir la yam Walf Quotidien ñi nga xamante ne ñooy système des Nations Unies nañu tembe ngir sàkku seen ñooñ ay liggéeykat ngir ñu def ndànk tey ci euh, mbeddu Ndakaaru euh, rawatina nañu moytandiku euh, buntu assemblée nationale ak feneen ak feneen ndax lu ne mun na ca tukkee ci googu lépp assemblée nationale. source ne lu ne mun naa tukkee ci dossier Ousmane Sonko bokk na ci lu koy yott du jur jàmm noonu la ko yéen bi xamle bu fekkee ne lañ koy tuumaal ne moo ko def Adji Sarr mi xam ne Ousmane Sonko def ko sakku ci lu dul coobare. dem maanaam siif euh, bokk na ci viol yéen cabinet loolee bu amee Ousmane Sonko yoon mun na ko teg loxo euh, te mun nañ ko denc ndungu siin ay diir maanaam ay ati at laata euh, ñu koy atte te buñ ko atte daan ba cay tegu gen ga néew fukki atu kaso mu ngi ci source la tribune turbine xëyee fu ay avocat Ousmane Sonko ñeenti mbir la ñu bëgg ci maanaam njiital assemblée nationale ak dossier Ousmane Sonko bokk na ci la ñu sàkku mooy Euh, benn rapport médical la ñu bëgg goo xamante ne euh, fu ñu ko tënkee weesu benn fan euh, bokk na ci tamit ña nga xamante ne ñoom lañ ci war a déglu ñu déglu leen ci bile dossier ba ca xale bu jigéen googee di Adji Sarr mi tuumal Ousmane Sonko ba ko ñetteel ñañ ca jot a tudd ci dossier ba nañ leen ca wolu ba ko ñetteel parquet bi maanaam ña ko war a atte nañu doxal yoon bu ñu sukkandikoo ci ay avocat Ousmane Sonko. le témoin le témoin ne Ousmane Sonko wéetul ak dossier mouvement Y'en a ci FRAPP France Dégage ñoom taxaw nañu tembe ngir jàppal tànk Ousmane Sonko euh, yooyu le kuréel ne duñu seetaan njiitu réew Macky Sall ak nguuram saxal Ousmane Sonko euh, gis nañ ne sax ne ci jamono ji nguur gi ay pexe mooy fexe ba Ousmane Sonko bañ a doon candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm. le quotidien le quotidien ne mbirum Ousmane Sonko coow la ca jib fan yi ci salon de massage ga mu demoon yëf ya giifagul ñoo lànk ak mouvement Y'en a marre taxaw ñoom taxaw nañu tembe njiital euh, Pastef ne la doy waar mooy euh, tekk tekkaaral gi nga xamante ne ay kuréel yu boot euh, jigéen ñi euh, def nañ ko benn ñu mandu ci bile dossier mu ngi ci le quotidien las ne lu waaju ci fitna gi woon ci ndakaaru ni ki altine gi ñu weesu ay jigéen ñaale Ousmane Sonko jotoon ci ay yëngu-yëngal juróom fukki ci ñoom jot nañ dina teg loxo bu ñu deful ndànk instruction dañuy mujje atte bañ leen nara atte nara diis lool ci seen ndodd mu ngi ci biir yéene kaab yi ci xëtam bu njëkk ñuy mun nañ jàpp ne virus googee dugg nañ njiitu réew mi Macky Sall cas euh, positif la euh, bu ñu sukkandikoo ci waa mu Y en a libération ne amagul liberté euh, bokk na ci ca lañ koy toppe moom Ousmane Sonko bokk na ci tamit la xew ca salon de massage gamu demoon ba mbir ya am la fa jot ci ay kaddu tuuma yene cabinet waajoojee jële Adji Sarr ca salon ba waajoojee kumu avocat yu Ousmane nañ ko xam bokk na ci turu Sidi Ahmed Mohamed eh, Mbaye di doom eh, ci ab responsable Benno Bokk Yaakaar turam fës na ci lool avocat bëgg nañ koo xam yéen cabinet bëgg nañu taataan itamit la tukkee ca lañu jot a déglu ñeneen ak ñeneen ca googule section de recherche les échos les échos ne njeextalu garde à vue bi eh, tey ji lay yeex ay ñooñu Ousmane Sonko dañ leen defeere tey ji yéen cabinet ñu bari ci ñoom nag ñu ngi doon weddi ne kenn seenu leen ca buntu kër Ousmane Sonko wala ci mbeddu Ndakaaru waaye nag vidéo yi nga xamante ne moom la askan wi jot a capturé Eh, feeñal na leen ba ñu mujjee nangu ne ñooma yéen cabinet nag tiitaange ci ndakaaru tey ñi nga xamante ne ay gan lañu ay étranger bawoo ca bitim réew tiit nañu lool ndax lu ne mun naa tukkee ci assemblée nationale eh, ci ñori mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko ba tax na eh, ñii di waa Nations Unies sàkku nañ ci seen liggéeykat ñu def ndànk ci yenn mbedd yi ci ndakaaru ambassadeur bu France itamit naka noone la ko sàkko ci ay doomu France réew mi sexe ak euh, politique yéen kaabi ni ñaar ñii le daanaka euh, yenn saay mu jur euh, njombe yéen kaabi moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk Ousmane Sonko moom ñu ngi xaar ëllëgam assemblée nationale tey jii la ñu fas yéene addu ci mbalaanu kiirlaayam député gamu doon ca pencum ndawu réew mi l'évidence ne njiitu réew mi Macky Sall ak la ko xañ nelaw bokk na ci jafe-jafe Sonacos tourisme gi ne ci jafe-jafe ndax coronavirus paj mi tamit sooxe lool ndax covid 19 bi yéen kaabi moo ñu ko yeggee Eh, keneen ku ne ci jafe-jafe di Yaxam Mbay eh, mi mu ne jot na ay wote yoo xamante dañ ko ca dànkaafu ngir bëgg ko song eh, joxoñ na ci baramu tuuma ay farado Ousmane Sonko mu ngi ci l'évidence 24 heures 24 heures ne lu aju ci déclaration de patrimoine bu Idrissa Seck yëf ya mujjee send ba yegg ca penc ma bokk na ci ñaareelu vague Covid 19 gën di fagagal askan wi lu ëpp juróom-ñaari téeméeri doomi aadama faatu nañu ci coronavirus ñu ne déetawaay mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr yëkkati ne jonn réewum Sénégal ak coow euh, gamu àndal ci waxtu wi de moom la 24 heures euh, xëyee. Vox Populi Vox Populi ne lu aju euh, ci ndajeb conseil des ministres gi woon démb njiitu réew Macky Sall sàkku na ci vaccination yi maanaam vaccin googee nga xamante ne ñu ngi koy tudd ngir xeex coronavirus bu yegsee na ci ñëpp jot na ci ñëpp ñàkku ñàkk yooyu sax dañ ko door gën ngaa yàgg fii leeg njeextalu weeru février gi ñu ne njiitu réew Macky Sall ay wax ne campagne de vaccination googee njiitu jot jot na cee leeral ne daan ci soobu ci njeextal weeru février gi ñu ne eh, ngir fexe ba askan wi mun a ñàkku eh, faggu ci coronavirus. le soleil le soleil ne campagne googu de ndorteel gi eh, njeextalu février lay doon conseil des ministres gi woon démb njiit réew Macky jot na cee leeralal lu bëri leeral yi tamit campagne gerte gi fuñ ci toll liñ ci jota dajale ci wàllu gerte mu ngi ci le soleil rek news direct news ne sage femme la waaye nag mujjee naa ñàkk bakkanam ci anam yu doy waar lool Fama Mbaye lay wuyoo yéen cabinet paj mu feebar ci Sénégal moo ko yóbbee loole ndax soxna si keroog bu mu feebaree fu ne dem na fa ngir mun a faju te mun ta sotti euh, dem na ca Thiès ak euh, Touba euh, bërëbu fajukaay yu bëri sax lal ya motuñu oxygène nga ko war a ànd gi gi waroon a taxaw ngir mun koo sowee loole mujj tam mott ba tax na paj mi sooxe na lool fajkat yi jot nañ cee ñaxtu ne Sénégal hôpital yeeg feneen ak feneen ñoo feebar ci jamono ji sud ak SAMES ña ngi cay ñaxtu mu ngi ci direct eh, news. sunu lamb eh, Moussa Ndiaye eh, di président école de lutte Balla Gaye déggal ne kenn jëlewu leen ca école 16 dañuy tàggatu mu ngi ci suñu lamb tënk la woon Seydina Mor Ba daañu ci dikkaat incha allah.